li ko tàmbalee ci kilifa yii fi toog mbokk yi yéen ñëpp Sidi Bakar mi asalaamaaleykum wa rahmatullah di nuyoo di ko tàmbalee ci kilifa yii fi toog Cheikh El Hadj Abdou Aziz nekk ci bopp ba ne Cheikh El Hadj Abdou Aziz nekk ca bopp ba Cheikh El Hadj Malick ak Cheikh El Hadj Malick nekk ci bopp bi Cheikh El Hadj Malick ak Cheikh El Hadj Malick nekk ci bopp bi niko seigne Abdou waxe sank rek. ne niko Moulay abdou Aziz waxe sank rek. ben El malik ne ben Cheikh Seydi hadji malik ep na daje. ep na daje. bo ci amé ñaar nak bo ci amé ñaar nak daje ba djegina dayo dayoo. daje ba djegina dayo waxu sëriñ bi. ne waxu sëriñ bi. waxal. waxal. moo tax ma wax. moo tax ne mu wax. waaye lii ñun ñëpp ko bokk. waaye lii kat ñun ñëpp ñoo ko bokk. te wóolu naa ko. te ne moom wóolu na ko. bu dee wax yóbbuwaale ma. bu dee wax yóbbuwaale ko. lu mu wax ma ànd ca. lu mu wax moom Seydou Bakar ne mu ànd ca. waaye waxal la ma wax. waaye nag waxal la ko wax. te li ñu baaxoo. nee nag te li ñu baaxoo. سيد منصور دان نكو واخ نه نعم، شا سيد محمد منصور دان نكو رضي الله عنه رضي الله عنه واخو كليفة واخو كليفة سو مني دفل سو مني دفل سو منول سو منول دفل دفل مو ملنا واخ بو غات لاي واخ نه نعم، مو ملنا نك موم واخ بو غات ريك لاي واخ داجي بي لي موي ري ري داجي بي كات لي ري ري لو امو في لو امو في la ñu waxoon daaw rek la ñuy waxaat ren. la ñu waxoon daaw rek la ñuy waxaat ren. la ñu waxoon daaw. la ñu waxoon daaw nag. wax ko daaw jéeg wax ko daaw jéeg. te yàgg ko fi wax te yàgg ko fee wax nag. mooy waxtaane jëfi Seydi El Hadj Malick. mooy waxtaane jëfi Cheikh Seydi El Hadj Malick. Seydi El Hadj Malick. Cheikh Seydi El Hadj Malick. ci ñett la sukkandiku wala ñeent. ci ñett rek la sukkandiku wala ñeent. bu jëkk bi bu jëkk bi. dafa mel na ku laaj boppam. dafa mel na moom góor gi ku laaj boppam. lu ma fi indi. man lan moo fi lan moo ma fi indi. ak lu ma fi wut si ma fiy wut si. mu mel na yàlla daf ko tontu. mu mel na yàlla daf ko tontu. ni ko maa la bind. ni ko maa la bind. indi la fi indi la fi. yaag say moroom. yow yaag say moroom. ngeen jaamu si ngeen jaamu si ma. Seydi Hadj Malick nangu Cheikh Seydi Hadj Malick daal di nangu daal di takkaayu ba dëgër daal di takkaayu nag ba dëgër soobu ci jaamu yàlla soobu nag ci jaamu yàlla yàlla ni taxawal yàlla ni taxawal des na des na jaamu nag jaamu nag ñaar daa ko teg ci sa kanam ñaar daa ko teg sa kanam واعبدوا الله واعبدوا الله ولا تشركوا ولا تشركوا به, شيئا, شيئا. boo may jaamu nag boo may jaamu nag doo xalaat keneen doo xalaat keneen man kenn rek ngay jaamu li ma te jaarale ko ci sama ndaw lu matale lii te jaarale ko ci sama sa ibaada sa ibaada la ma digal la ma digal wa umiru wa umiru illa li yabudu illa li yabudu llah muxlisina lahu diin ci loolu la Seydi Hadj Malick sukkandiku ci loolu la góor monsieur Seydi Hadj Malick sukkandiku yëg ni jafena. na yëg nag ni jafe na mu dellu ca boroomam mu dellu ca boroomam ni ko yàlla yéen bi diis na ni ko yàlla bi diis na te def ko ba mel ni nga bëgg yombul te def ko ba mel ni nga bëgg yombul kon nag maa ngi dellu si dila talal sama loxo kon maa ngi dellu si man dila talal sama sama loxo ndax lima ma wër dafa bare ndax li ma wër dafa bare te gis naa ni nit ñaa ngi sëxër te gis naa ni nit ñaa ngi sëxër ma bëgg ci bokk ma bëgg cee bokk waaye la may jëkkante waaye la may jëkkante mooy la ma yitteel mooy la ma yitteel li ma yitteel li ma yitteel nag mooy yow mooy yow على همتي على همتي فجعل فجعل إلهي إلهي علية, علية لأن صرت لأن صرت حرا حرا خالصا, خالصا كل وجهتي ثم لا أميرك ثم لا أميرك توب لا يوم يلا ما يكون يلا نك دالي كوكاي ماي mu ne ca nee góor ga ne ca nag kon ñaara ngoog kon ñaar ñu ngoog ñetteel bi ñetteel bi nag moo di xaqiqaam mooy xaqiqaam li mu lay Abdul Aziz mujj a waxtaane léegi mu jël ko mu jël ko nag ŋànk ko ŋànk ko addu koy wax bi mu koy wax xam na ni jamono bii dana ñëw. xam na ni moom jamono bii dana ñëw. mu wax ca la mu wax ca nag moom góor ga lam ca wax. Eh, gannaaw loolu itam ne gannaaw loolu itam nag. mbokk yi bëgg Seydi Hadj Malick lool. mbokk yi nag bëgg Cheikh Seydi Hadj Malick lool. bu ñu ko tuddee rek bu ñu tuddee rek. Tiwaawan daal di xat. Tiwaawan daal di xat. nit nag nit nag. soo ko bëggee. la mu nekk la mu ne danga cay nekk danga cay ne li Seydi Hadj Malick nekkoon ne li Cheikh Seydi Hadj Malick nekkoon di ca woote di ca woote mooy jub mooy jub ak jubal ak jubal bind na ba tàyyi moom góor gi bind na ba tàyyi nag waaye doo gis fenn turam ci li mu bind waaye kat doo gis fenn turam ci li mu bind moom Cheikh Seydi Hadj Malick maa def lii maa def lii wala yàlla may ma lii wala yàlla may ma lii déedéet déedéet doo ko gis doo ko gis mukk ku bind wax nga sa bopp ku bind nag wax nga sa bopp ba mu des Cheikh Seydi Hadji Malick kon kon nag bu ñu mënee daje bii daje bu ñu mënee daje bii daje sawar ci daje bi sawar nag ci daje bi nañu sawar nañu sawar gëstu gëstu yoon wi Seydi Hadji Malick soobu yoon wi Cheikh Seydi Hadji Malick soobu ñu dabe ji ñu dabe ji te yoon wi mu soobu. te kat yoon wi mu soobu. moo di moo di. yoon wa ko yàlla waxoon yoon wa ko yàlla waxoon rek. ni ko inna haada. ni ko inna haada. siraati siraati. mustaqiman mustaqiman. fattabicuuhu fattabicuuhu. wala tattabicu. wala tattabicu subula. fatafarraqa fatafarraqa bikum. an sabili noonu. noonu daal. la Seydi Hadj Malick doxale. la Cheikh Seydi Hadj Malick doxale. kon kon. nañu soobu. waaye nañ leen soobu. yoon wa yoon wa. أن أن سقو سيد الحج مالك سقو سيد الحج مالك نك دوساجي دوساجي كده قسم قسم نيو بتاي قسم نيو نك بتاي كل لنجرة كل لنجرة ما نتشال بي قسم ما نتشال بي قسم واي دار درود واي دار درود ده ملانم سترام نه ملانم سترام خت نيو كبار بني خت نيو sama samp bii sama samp bii kat. sampalu ma ko sama bopp de. yàllaa ma ko sampal. bu kenn yëngal bu kenn yëngal. wala ngay seet wala ngay seet. dëgër na këj dëgër na këj. ku mën bàyyil noonu. ku mën bàyyil noonu. ku mënul ku mënul. seetil leneen seetil leneen. Seydi Hadj Malick Cheikh Seydi ku neex a toppandoo la. moom kat góor gi ku neex a toppandoo la. waaye. waaye. li ñu dal ci moom. li ñu dal ci moom. mooy li ko dal ci yonent bi. mooy li ko dal ci yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam. di ko roy di ko roy. bàyyiwul daraam bàyyiwul daraam. ñun itam ñun itam. ñu di ko roy ñu di ko roy. bëgguñu bàyyi daraam bëgguñoo bàyyi daraam. waaye mënuñu ko dab nag waaye mënuñu ko dab nag. wolof dana koy wax. nee wolof yéen yéen di yéen koy wax. ku jur kii ku jur kii. ñu ni diw ñu ni diw. ñu du dab baayam ñu de fekk na fekk na nag tànk baa nga ca tànku baay ba tànk baa nga ca tànku baay ba waaye du dab baay ba waaye alhamdulillah rabbil alamin ne ñun dal li ñu moom sant yàlla rek sutura sutura mi ngi fi mi ngi fi te toujours toujours nag sutura bi feeñ bu ñu ko bëggee suul rek bu ko bëggee suul rek yàlla dal di koy sullil boppam puukare. déedéet du puukare. sant yàlla la. jataay bii. jataay bii. da ngeen defe ni jafe na. da defe ni jataay bii jafe na. jafewul de. yomb na ku ñu tënk. ku ñu tënk. di diri. di la diri. ki lay diri. ki lay diri. ëpp la doole. ëpp la fu mu la bëgg a jaarale. fu mu la bëgg a jaarale. la fa jaarale. dana la jaarale. ñun li ñu tënk bare na. de. dëgër na itam na itam nag. kon nag kon nag. doyloo waxu Serigne Abdoul Aziz. doyloo waxi Moulay ndax moom wax na résumé na lu bare. moom Moulay résumé na lu bare. la ca des nag la ca des nag. jikkoy yàlla la jikkoy yàlla la. yàllaay dégg lépp. yàllaay dégg waaye sàkk ci nag lu muy déglu. waaye sàkk ci lu muy déglu. du déglu lépp. du déglu lépp de. waaye dina dégg lépp. waaye dina dégg kon nag. yéen itam yéen itam ñun itam ñun itam nañu déglu leen déglu te jéem a dégg te jéem a dégg bu ñu déggee rek bu ñu déggee rek daal di jëriñu fa tabaarakallahu uh, wax bi na ne wax bi doy na ne ndax moom danay wax ni mbooloo moo xam ne ñoom dañoo bokk dara wóoloonte jox ko kenn mu yéwénal mën na mën naa ne bu ko defee ñëpp jëriñu noppalu waale boole ca kon nag nee ñu jéggal ko waxu Moulay Abdoul Aziz bi li mu ni ko waxal moo tax ndax dañoo toll ci jamono boo xam ni ñu yëg ak ñu bañ a yëg ak ñu bañ a yëg. am na ñuy wuy si. am na kat ñoo xam ne dañuy wuy si. di seetaan si am na ñuy ñëw am na ñëw. seet di seet si. am na ñuy ñëw di seet si waaye la góor ga Cheikh Seydi Hadji Malick waxoon rek ah Malick nag lu mu bare bare pexe du tere kenn soccu waaye moom Malick ne dina góor ba ko socc it doo gis loo ree kay loolu nag moo fi am gàmmu ga ba léegi. gàmmu ga daal ba léegi. seetkat yi seetkat yi. ñu ngi topp ñu ngi topp rek. di seet rek. allahu akbar. bu ñu fi nee bu nu fi jógee nag ku gis nettalil nettalil li nga gis yow daal mënoo paase ndegam waxkatu dëgg nga man de dem naa fa waaye bokk yépp laa fekk ñu toog nekk benn nettalil loolu jeex na Cheikh Ahmed Tidiane ne Cheikh si Maktoum mooy sunu xalifa nee bu dul woon sunu xalifa yi di sunu mag di sunu sëriñ mu jeex dëggal loolu. nee loolu cër la yàllaa ko tërale noonu te yàlla nag lu mu def noona la nee moom Seydou Bakar ne danay wax ni nee di ko seedaloo nag boroomam ni ni képp ku bàyyi ko ci El Hadj Malick. képp koo xam ne bàyyi koo nga ci Cheikh Seydi Hadj Malick. fu ma la gis. fu ma la gis. danaa la xormaal. xorma joo xam ne xorma joo xam ne. su ma gisoon El Hadj su ma gisoon Cheikh Seydi Hadj Malick jox la ko. jox ko ko jox ko ko. ñëpp sama sëriñ. ñëpp ay sëriñam lañu. loolu. loolu nag. مولاي الشيخ الحاج عبد العزيز الدباخ موكو كو ديغل موكني كيرس ياك كيرس باسيول ياك كيرس باسيول تيمان عبد العزيز ما يكتي سما كادو ما يكتي سما كادو تي كاو دومو الشيخ سيدي حاج مالك موكو nee mu xam ni nag loolee mu ko wax njëriña ca ne bi xurmatin wasala man qad wasala lu ca bokk doonte bant la waaye war maalal fa tabaraka allahu salaamu aleykum wa rahmatullah ziyaare leen nag ndokkeel leen ndokkeeli Moulay Abdou Aziz ndokkeel njaboot gi gërëm mbokk yi gërëm nit ñi ni ni alhamdulilahi rabbil alamin kuy seet daal lii nga gis jeex jeex salaamaaleykum wa rahmatullah